ñun euh, wa FRAPP ay weer ngi ñu ngi nek ci ligéy liggéeykatu Aristide euh, Le Dantec n'ek ci wetu euh, syndicat yi ngir and ak ñom ci li ñuy xex fi ci hôpital Aristide Le Dantec man nak dama joggé spécialement Ziganchor euh Dembla Exi te ginaaw Yalla li motax ma ñëw fi sama téway fi nak moy woné sama njàqare and ak kat yi and ak patients yi and ak accompagnants yi andak syndicat yi woné sama woné sama naxar woné sama métit ci li nga xamné mo xew ci hôpital Aristide Le d'accordul ci gouvernement Macky Sall li nga xamné mom lañuy def tabax ay stade ay Dakar Arena ak ñom kenn waxu fi dañuy jaay pour tabax en stade de 150 milliards donc ana lan mo wara a tax fi ci hôpital Aristide Le ñu dañuy trois hectares pour tabax li nga xamné moy hôpital Aristide Le Dantec ñu japp nak ne fan yi di ñew ñepp wax nañ né fi ak fukki at fi ak ñaar fukki at Limu askanu Sénégal dafa nar yok limu askanu Dakar dafa nar yok kon dañoo soxla assiette foncière hôpital bi yépp mu dess ci momelu hôpital bi té fu askan naree yok euh, nañu jàpp ne li mu maladie dina yok. nañu japp né limu ñi fi nar liggéey dinañ yok nañu japp né limu bureau yi ak ñom seen dinañ yok

déguerpir nañ ay malades déguerpir nañ ay accompagnement ay accompagnants déguerpir nañ ay ay blouses blanches lii dafa ñaaw foog naa ne pour la première fois dans l'histoire de la planète Terre ñuy déguerpir ay malades malades yoo xam ne ñenn ñi ñu ngi feebar feebar yoo xam ne dafa soxla un suivi journalier ñu ci mel ni ñi nga xam ne suñu mbokk yi am cancer suñu mbokk yi di def ay radiothérapie tey jii nii ñëpp xam nañ ne Sénégal ñaari bërëb moo am fu ñuy radiothérapie moy fan dalal jam mi nga xamné ne panne na depuis kenn xamatul kañ bi moo fi des mooy bu hôpital Aristide Le dantek buñu ñu hôpital bi malade yi fan lañu naré def sen sen radiothérapie loolu moy une condamnation à mort manam ndogal bi nga xamné président Macky Sall jël nako ci tëj hôpital Aristide Le dantek ci anam ñum kay défé amul wajtaay amul dara dafa melni ni dafa am ay sénégalais yo xamné dañ leen condamné à mort.

Nous sommes dans le confort et euh, prestataire contractuel ak n'est en fait dans le stress permanent est-ce qu'on sera payé est-ce qu'on recevra nos motivations est-ce qu'on recevra en fait euh, nos indemnités l'ol de donc la lutte continue